Real Madrid bëgg naa andi kii di Erling Haaland juróomi dërëmi xorom du ko ca dépassé la ko Real conseillé xelal ko ko lépp di ngeen ko am ci xibaar yi Modric day jóge Real Madrid waaye nag Carlo Ancelotti bëgg na mu ne ci wetam gars yi abonnement yi bu leen ci des ginnaaw maximum de j'aime maximum de partage maximum des abonnés maximum de followers ñu bëgg leen kontaan ci yéen ma nga Erling Haaland option bi nga xam ne daanaka Real Madrid am na ko xamal ko gone gi nag duggal na ko ci am noppam moo xam da koo déy moo xam lu mu ko ko mën di wax xamal ko ne ko mën nga resté fii ba deux mille vingt cinq ak euh, Manchester City sa contrat foofu lay jeexee waaye lankaka ndaareel bul yokk contrat bi ba tey jii loole mi ngi am ndax Haaland yokkulu contrat dayang ak Paris Saint-Germain teg na ci taabal ji soixante millions d'euros maanaam juróom-benn fukki millions d'euros yoo xam ni teg na aslëf maanaam bonus yu cuqur mbuuj ngir lan gone gi. ñëw di football foofee ca Paris Saint-Germain ndax loole dana am wala du am lépp rek ngir Paris Saint-Germain jaxasoo gum jaxasoo jaxasoo wun benn yoon bëgg na contrat bi nga xam ne jeex na te Luka Modric kii di Carlo Ancelotti woo na ko ci ab ruq ko xamal ko ni ko bu fekkentee ni Real Madrid da ngaa a jeexal te it ko signé waatu ab contrat bëgg a jóge ca club di ko ñaan wër ngaa mën a noppalu wéy di des ci man nekk ci sama wet di ma conseillé ndax mag nga moo xam ne xam nga lu baree bari ci Real Madrid ba nga fa nekkee léegi yaatu na bëgguma nga jël la traite internationale dem di toog di jaay banaana wala ngay toog di noppalu dama bëgg nga des ci club bi nga xam ni sa xol ak sa xët xëtër lépp jox nga ko Sao Félix jox na xëtëram Barcelone waxoon naa leen ko démb ànd beeg Aladji Malick TV am na solo kon dee leen ko topp joxoon naa leen information ni leen gone gi wér na pilik car macha allah léegi boog door na ak entraînement te match bi nga xam ne Barça dana ko am ak Naples moom gone gi dana ca bokk ba ma koy wax nag bari nañu bàyyi woon xel loolee loolee nag kii di Safi confirmé na Aladji Malick TV ndax moom boole nañ ko ci groupe bi nga xam ne suba ak jàmm a football ak lii gars yi gërëm naa leen bi am na solo maximum de j'aime maximum de partage